mes chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba noppi ñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis à partir de 14h30 seen émission bi nga xam mooy xew-xew nga xam ne lépp loo xam ne xew na si gox goxaat dañu fay dem ànd ki yéen tey nag fi ñu taxaw ñu ngi fi nga xamante ne fi la xew-xew bu doy waar am ku ñuy wax Cheikh Gueye moom mi nga xamante ne il est âgé de 29 ans keroog ñu ne bi mu jàppee bi su ngénteem booba la réer ba léegi kenn gisu ko mu nekk loo xamante ne ay mbokkam yëpp dañoo jaaxle ànd ak tiis ak naqar boo xamante ne xamuñu fu ñu koy waxee moo wal tax ñu woo waa xew-xew ndax ñu mën leen see dimbali ndax xale bu góor la boo xamante ne soutien de famille la waaye am na soxna am benn doom ba jàpp gis booba ko ay mbokkam jaaxle loolu moo wal tax émission xew fi fas yéene ànd ak mbokk yeeg xarit moom disparaître bu ko nga xam ne ñooy Sen TV yi nga xam ne képp ko gis mën a dimbali ay mbokkam ba ñu gis ko Cheikh dag may topp ñu daal xuus dugg si biir voilà mbokk téléspectateurs yi gis ngeen li ñu leen doon wax léegi mbirum Cheikh Gueye moom nga ne moom moo réer ay mbokkam boobu ba léegi mu nekk loo xamante ne lu métti loola ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkk fii nga xamante ne mooy yëmbal buun boobu ba léegi lekkatuñu naanatuñu ñu ngi nag toog ak yaay mi nga xam mooy maman may a fay mu wax ñu nan la doomam jooju réere maman ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay euh, tey waa 7TV dañ la ñëwoon seet si ndax sa doom jooju nga xam ne dafa réer nan la réere doom ji nu mu réere doom ji de dafa amoon xew dafa jàppoon bisu ngénteem la 27 mai la waroon a ngénte yëgle na ngénte li ba pare léegi nag bi mu samedi la 27 bi bi mu wàccee liggéey na ba wàcc bi mu wàccee nag léegi bi mu ñëwee romb si buntu kër gi nuyoo dugg si biir am na tamit benn ku mu àndaloon xaritam ku mu bokkaloon fi muy liggéeyee daal léegi nag bi mu wàccee léegi bi mu duggee si biir kër gi léegi nag ba sangu ba pare léegi nag bi muy génn si waat tasanteeg man maa ngi duggaat ci biir kër gi rakkam bi daal ne ma yaay yow yaa waxoon da ngay waxtaan ak seex ma ne ko waaw kay wala moom mi ngi nii di dem su guddee du ngeen waxtaan ma ne ko waaw parce que bu guddee man dina ma fekk mu tëdd léegi ma ne muy génn ma ne seex taxawal laa taxaw ma ne ko seex lu ñoo war a waxtaan parce que xew bi ñëw la ba pare samedi bii di ñëw la mu ma waaw yaay si yow laa nekk boobu nag mi ngi jël téléphone bi teg si noppam am na ko mu yooyu mun ma si yow maa ngi déposé kii rek dem te ñëw bu soobee yàlla bu ma ñëwee ñu waxtaan bu mu demee nag gisaatuma ko boobu ba léegi. loolu ay yan heure la. ay côté war naa côté 10 heures yooyu wala 10 heures jotagul rek ndax dafa wàcc rek sangu génn. 10 heures ci guddi waa fekk liggéey na ba wàcc waaw. moom dafa daan dem wala c'est la première fois mu dem noonu. déedéet daawul dem fenn liggéey wàcc ñëw si kër gi. ama ah, daan toujours dama yore crédit pour bu guddee ma woo ko ndaxte Dakar lay liggéey su ko defee bu ma nee seex foo toll mu ne maa ngi si yoon bi di ñëw yoon bi moo xat waaye maa ngi ñëw yenn saa yi tamit su ma ko woo bala ma kaa woo mu woo ma dama yaay maa ngi ñëw de damaa guddee rek waaye maa ngi si yoon bi di ñëw léegi yenn saa yi tamit bu fekkee ne crédit dafa kii portable am dafa fay day ab beneen portable woo ma si dama yaay maa ngi ñëw ndax sa xel dal maa ngi ñëw si yoon bi sama portable moo fay waaye moo tax moo àbb beneen woola si ma ne ko waa baax na noonu daal la ñu nekkee woon maa moom mu dem boobu ba léegi gisoo ko amoo si moom benn nouvelle yow fan nga jàpp ne dafa réer dafa dañ ko jàpp wala yan gëstu ngeen def pour mën a xam est-ce que dem ngeen ci prison yi xool ak noonu ñoom seen. prison yi nekk fii yëpp da daj na ba bari ñu ba kees foofu yëpp dem nañ fa. fu ñu dem ñu ne ñu amuñu droit sax téye ko ndax bu jàppee nit dañu woo ay mbokkam pour mu mën a jokkoo ñoom ñu xam ne mi ngi bërëb sàngam waaye amuñu droit téye kenn te wowut ay mbokkam xam ne moom mi ngi si prison bi waaw loolu lañ ma wax. jotewu la kenn ci kër gi amulu ko fi naqari ba wala tax mu génn kër gi jotewu fee kenn jotewu fee kenn ndaxte moom yëgle na xewam def yëpp jotewu ci kër gi kenn. kooku moo nekkoon taawam wala. taawam la waaw taawam la xam nga jabar ji bi mu am doom boobu kenn wóoragul ñu ajoon ko nag léegi ñu ne nan ngénte ba la ñu tëbaski waaw léegi ba la ñu tëbaski nag si lañ jàppoon bis boobu ñu ko war xewal waaw. nu ngeen mujj xew bi. xew bi moom mujj naa ko eggale ndaxte fekk na ku jigéen ki yaayam yëgal na ay mbokkam ba pare ba ñu commencé waaye man bi mu demee ci suma ko man moom laa arrêté man sama yëgle moom foofu la yem yëglee tuma mën a xëy na tam balaa xew bee jot moom dina ñëw léegi ma nekk si rek di gëstu di laajte ak demaat ci maamoon yeeg yooyu waaw di ñaan loog yooyu ku laaj daal. su ma laajee am na ñoo xam ne nee na dañ kaa naawtal waaye itam mi ngi si jaamu feebaru dara jotu ko waaye pour mu ñëw daal mënoo koo gis ci affaire sëriñ yi daal ñoom loolu la ñuy wax waaw. xalaatu aussi comme xale yi léegi ni ñuy tukkee ñi di dem euh, si gaal gi ñi dem naka euh, euh, di dem yoonu États-Unis yoonu suuf bi ni ko la je pense xalaatoo tamit musul waxtaan ak yow si lu jëm si mu aw si yoonu suuf bi wala mu jël géej gi pour tukki tamit. loolu mu mosu koo xalaat te mosu koo waxtaane sax ndax heure boo ko waxee rek danaan ma yaay ñaanal ma man lii may liggéey mën naa cee faj samay soxla ñaanal ma yàlla rek sama liggéey bi barkeel carreleur la Dakar lay carreler waaw ma yàlla daal lii may liggéey soobee yàlla mën naa cee faj samay soxla du ma faale sax ku tukki mosu koo waxtaane mosu koo kafe moom wax dëgg yàlla ah man kay li ma njortu man li ko yóbbu laa xamut lu mu doon ndaxte musul dem fenn fu mësan génn tamit dina ma xamal ne maa ngi bërëb sàngam ma jokkonteeg moom waaw fu mës a génn rek dina ma xamal ne maa ngi bërëb sàngam ma jokkonteeg moom waaye lii moom guleet te bi muy dem tamit am na sànce bu mag bi nga xam ne moom commencé woon na ko waaw sànce bu mag boo xam ne moom mën na cee gañoo lu bëree bëree bëri sax waaw commencé mu xëy xëy bàyyi loolu dem dem léegi gisuma ko waaw fu ma xam ak lu ma xam yépp dugg naa ci waaw ma demee nag ba sonn nag laa soog a commencé dugal photo yeeg yooyu waaw ma ne naa ko ci dugal ba xam comme sama doole jeex na te xamatuma fu mu mën a ma naa ko ci def ba xam xëy na am nit ku ko gis fenn wala dara dimbale ma ci waaw loolu moo tax mu dugal ko. déedéet waxuñu ma dafa tukki de waaw ñu mu laa tukki. déedéet gisuma ko de. ban appel ngay lancé ñu lay seetaan ci biir 7 ah xanaa ku ko gis rek dimbale ma ci te xam ne man sonn naa koo xam ne bu guddee àll doo nelaw ah mu dem lu mat ñeenti weer ba dugg ci juróomi weer xam nga ne yaay mi lekkatu nelawatut te lépp lu mu am def na ko ci pour gis ko waaw lépp lu ma am ak lu ma xam ak fu ma tegtal rek dem naa fa pour gis ko waaw. tooguma nag benn yoon ba tey jii nga may gis nii ni da am am fu ma war a gont li ngeen wax da di xëy si sax moo tax waaye damaa waroon a xëy dem wante tey ji comme yéen a ngi fii ñëw man naa leen xaar ba ngeen pare rek daa am feneen fu may demaat nii nii waaw boobu ba léegi nag yendalu ma fanaanu ma ay magam yendalul fanaanu bilaa ku nekk fu nga xam rek yaa ngi fa jëm pour gëstu rek pour ñu xam ci moom dara waaw. laaj nga bi liggéey yooyu yëpp nekku fa. nekku yi nekku fa. amin waay amin amin amin voilà mu ngi noonu dégg ngeen ki nga xam mooy yaayam a Faye mi nga xam ne moom la doomam réer bu ñuy wax Cheikh Gueye âgé de 29 ans boob ba léegi gisuñu ko dégguñu ko gannaaw ba mu mébétee ngénte doomam ba léegi kenn gisu ko kenn déggu ko mu nekk loo xamante ne doy waar loolu la muy lancé appel rek xanaa ñu wéyale suñu émission xew-xew rek ani soxna si mu ngi fi soxna si waa mu ngi fi ñaanal yéen tamit di ngeen ñëw ba fii di ma kii si maa ngi leen di ñaanal seen télé bi ngeen yokk ba yëg di leen ñaanal gudd fan ak wér ah di ñaan rek yàlla niital ma sama doom ji ak fu mu a nekk rek maa ngi tàllal loxo ñëpp ku ma ci ëpp ay pexe tamit nga dimbale ma si pour ma man kaa gis waaw. ñu ngi toog ak madam Guèye ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi yow la ñëw seet si tey ndax sa borom ko dafa réer boobu ba léegi mënoo fexe ba gis ko boo ñu doon wax nan nga ko yëgee yow xew-xew boobu. waaw metti waaye sant yàlla rek wax dëgg fa yàlla sant yàlla ndax man bi ñuy waajal xew bi. ci laa dem suñu kër le 20 laa dem suñu kër moom le 27 la dem 7 jours lañ toog gisee wuñu xanaa après samedi bi dégguma ko dimanche ma xëy laa yónnee fii yaayam ne ma nekk damaa yónnee ñu ne ma nekku fii ma yónnee waa ñu ne ma nekku fii après ci la ma yaayam woo ne ma seex ne ma foofu ma ne ko déedéet ndax man yónnee naa foofu ñaari yoon ñu ne ma nekku fa ñu ne ma ko ne moom fanaan si wut mu ne ma moom fanaan si wut léegi nag ci lañ commencé di wër dikk boobu léegi nag gisuñu ko dégguñu ko xamuñ ci lu nekk. musul toog ak yow di wax waxi tukki wala genre wala. dëgg fa yàlla. yéen seeg léegi yàgg na. un koo xam ne xalaat nga mu jàppanteeg moom wala genre yooyu. non xalaatuma jote naa kenn wax dëgg fa yàlla xalaatuma ko daal. léegi mu xëy xëy dem noonu boobaak léegi gisoo ko nan ngay dundee loolu. waaw mooy li la wax nii rek sant yàlla dañuy baax yàlla moom ku mu bëgg rek lay teg natt la tegee natt bi danga koy nangu danga koy nangu gëm ko tamit di ñaan yàlla mu ñëw si jaam rek fekk ñu si jaam da yaayam sonn na ay magam sonn nañu ñëpp sonn lekkatuñu fanaatuñu fu ñu xam ñoo fay dem dëgg fa yàlla ñaan yàlla rek ñëw si jaam. bu ngeen xëyee nan ngeen koy dundee boobaak léegi yow mi soxna boo xëyee lan ngay def. ah dama manqué moom dëgg fa yàlla dama manqué trop dara lu ma metti su ma xëyee li ma doon dund moom su ma xëyee gis ma ko dina ma manqué trop. <laughs> d'accord yan la soloon bi muy dem. non yëre bi mu sol moom bu ma ñëwee dama après ci dama yaay ma xëy yëre bu mu sol. mooy ñëwee di raadala ci laa xam ne moom ko yëre bi la sol yëre bu giri la sol bu muy dem. mook tubé bi ñoo niroo waaw kolo kol bu noir ci loo ñu mën a wax ci moom sa jëkkër waaw nit ku baax nit ku tabe bëggut kenn mer wax dëgg fi yàlla fu mu nekk day waxtaan nañu ree bëgg xale tamit bëggul dara mu metti bu dëgg neex yaa rek bëggul dara mu metti ñuy waajal xew far yàlla doxalee nii wala ceeg sant yàlla bu baax sax waaw mais noo dundee sa xew nga yëgle ko ba dara desulul mu des une semaine sa jëkkër réer boobu ba léegi gisu leen ko jour xew bi yow nan ngay sentir nan nan nga doon dundee mu leer la ne yow sa jëkkër nekk fi wala nga am espoir que ne balaa xew bi jeex. waaw xalaatoon nañ ne balaa xew bi dina ñëw mais tamit métti woon na tamit bi mu demee ñuy waajal xew bi métti na trop ndax wax ma ko kenn maa sama goroo ko xam ak waa kër gi wax ma ko kenn waaw ndax xalaatoon nañ ne balaa boobu dina ñëw. waaw. jotoon ngeen jënd ay yére yére yi waaw yére yaa ngi bi ñaw nañ ko ndax magam góor moo ma ñawal moo ñaw yére yëpp moom yére moom ay yére waaw ba ñu jëloon ko mesure ñu ne samedi bi ñëw dellu si may xaw ci la génn waaw manqué nag trop si xew ba dëgg fa yàlla ndax loo xamante ni jàpp nañ ko pare mënuñ tuñ kaa annulé wax nañ ko mbokk yi mbokk yi commencé nañoo ñëw tamit faaw nga def ko mais nan ngay dundee loolu sa borom kër réer ngeen waroon xew yàlla def ñëwul ba léegi nii en tant que jabaram nga xam ne daan nekk tout le temps. ah métti na métti na rek fa yàlla métti waaye sant yàlla xëy na yàlla noonu la ko namee woon xëy na yàlla noonu la ko bëggee woon. est que tegu leen ko pression boo xam ne peut-être ak xew bi àttanu ko moo tax mu fugue dem wala. déedéet xam ah, nga dëgg fa yàlla du tegu benn pression yaayam tamit noonu liggéey liggéeyam ñëw ñibbisi ah, ci xew bi. fa dëgg fa yàlla. teguñu ko de ah non du xew bi moom xew bi moom tax mu kaa dem wax dëgg fa yàlla ndax motale woon na lépp ku jàpp si xew ba ne su ma xëyee defar sama néeg gam xew bi dimanche bii di ñëw la samedi bii di ñëw la koo xam ne xew bi yóbbuwu ko ba ñu xotti yére ba teg koo xew bi yóbbuwu ko. léegi ban appel ngay di ñaan maanaam ku ñu gis rek nga dimbale ñu wax dëgg fa yàlla yaayam sonn lekkatut naanatut ku ko gis nga wooñ nga dimbali ñu yaa rek tax ku ci am tamit lépp loo ni wàllum ñaan la nga dimbali ñu si mu ñëw si jaam fekk ñu si jaam loolu daal la ñaan suñu borom bi. jërëjëf jaajëf. voilà mu ngi noonu dégg ngeen soxnaam li mu wax moom itam ñu daal di wéyale rek suñu émission xew-xew ba tey. voilà mbokk yi ba tey ñu ngi wéyale suñu émission xew-xew Cheikh Gueye mi nga xam ne moo disparaître mystérieusement kenn xamul fan la aw boobu ba léegi ay mbokkam yëpp jaaxle nag xayit xayiteeg am di jàmm yi soxna seeg yaay jeeg mag yi yëpp ñu ngi toog kenn koo xamante ne mag la si moom soxna si ñu leen lay nuyu. ñoo ngi lay fay ndey. ñu ngi leen di masawu li nga xamante ne moom mooy seen njàqare ngeen koy wër boobu ba léegi yow noo yëgee xew-xew bi. man de ay guddi mu war a ngénte suba sama yaay ne ma waa foo nekk ma ne ko maa si kër gi mu ne ma si kër gi ma ne ko waa ma ne ah mbaa jàmm la mu du jàmm mu ne ma seex de gisuma ko ma ne xanaa dañ kaa ramaas mu ne déedéet ndax dem naa ci police yëpp gisuma ko ma ko kon xaaral ma jóg ma daa di jóg ma daal dem police Kër Massar gisuma ko ma demee kër Massar gisuma ko ma dem bu parcelle gisuma ko ma dem Thierno Ndiaye gisuma ko ma dem komiko gisuma ko ma daal ñëwaat naan ne ah xam naa balaa bës dina ñëw mu ne ma ah balaa bës dina ñëw ba ne tey la ngéntale yéreem yaa ngi ne tege juróomi jasineer la xotti dënd yépp yorelul kenn dara tuxul yàmba naanul sàngara jëlul yëfu jàmbur deful dara ànd xaritam mu ñëw fii mu àndee xaritam mu ñëw fii ñu ànd di dem bin àndee di dem ñëwaatul ba nëga ni si ñëwaatul xaritam nag moo ngi fi ak doomam ak jabaram ak seen waa kër ñun xiifuñu ñaan ñun lii dañ koy ñaan ngir yàlla ak yeneen tubi ak jëmmi sëñ Touba Mbacke mi nu bokk mu génne seex seex rek lañ soxla soxla wunu leneen. kan génne seex. moom Ibrahima moom fu mu mën a nekk seex ak ay mbokkam nan génne seex. Ibrahima moom la seex àndaloon moom la seex àndal. kan moo ko gis bi muy ànd sama rakk bi gis na ko sama caatu yaay bi gis na ko sama yaay gis na ko ñoo bokk reer fii si kër gi ñu àndandoo wàcc. sance bi Cheikh engagé jox na ko ci ñaar fukki junni moom Ibrahima moom moo ngi eggale chantier bi di xëy di wàcc man man ak jabaram ji ak ñii ñooy dem section de recherche chaque jour ñu fay dem ba tey jii nii ma feebar yore woon ay tànk trois mois ma tëdd ko mënuma ñu mënuñoo jóg mënuñoo toog sunu papa daa gaañu sunu yaay bi kese lañ fi dese amuñu kenn suñ rakk yi sama rakk yi kese kese kese kese kese lan fi yore ñoo bokk ndey ak baay sàccuñu tuxuñu naanuñu sàngara defuñu lenn lu nu am ci biir kër gi lañ koy indi lu nu amul amuñu ko xeexuñu defuñu fi dara ci mbedd mi kon nag moom dañ koy ñaan ngir yàlla ak yonantu bi ak ñoom su dee xam nañ fi seex nekk te yàlla rek rek rek tax mu dimbale nu ngir yàlla mu génne seex ndax sunu yaay lan dese dese wunu kenn kudul moom te moom la nu am te seex sama doomu yaay la seex mooy sama doomu yaay sama yaay ñun la jur waaye seex mooy doomam sama yaay ñun ñii la jur waaye seex mooy doomam moo taxoon ma bëgg mu dimbale nu ngir yàlla bu dee da koo def dara wala mu xalaat ko dara wala mu def dara mu indi ko seex teguñu ko benn pression seex amu benn naqara seex lu mu bëgg bëgg nañ ko lu mu bañ bañ nañ ko ndax bañ nañ ko ba sama pap daa bëggoon maam Seera Faal moo tax ñu bëgg seex su suñu xol ñun moo tax ñu bëgg ko suñu xol seex nag foo nekk man sa mag dëbëgay maa ngi lay ñaan ngir yàlla ak wëru suuli yàlla nga ñëw ak jàmm si barke Seydina Muhammad si barke weeru tedd wii maa ngi lay ñaan lii ñuy jànkonteel yal nañ ko yàlla teggil yàlla mi mën a teggi yal nañ ko teggil bin dëkkee fii ba tey 43 ans du ñaan kenn dara soxla woon yëf kenn dara kenn xamaloon dara duñ ay caga duñ ay xaj duñ ay jaam duñ ay des dara yal na ko yàlla teggi loolu rek lay ñaan mais moo tax ngeen jàpp ne Ibrahima dem ngeen ko xooli xayitam boobu nga xam moom la àndaloon bi muy génn si kër gi xool ngeen ko laaj ngeen ko walla. Ibrahima bi ko xoolee. ban dem maag jabaram ñoo demoon. section de recherche. bi ñu demee ba dugg ci biir. bi waxee ak ñun ba pare. bi ñu génnee ci biti. damaa ne jabaram kii génnul si biti. mu ne ma génn na ne ko kii génnul ci biti. mu ne ma génn ma ne ko billaahi barke sëñ Tuubaa kii moom ci biir. mu daal koy woo mu ne ko dama fàtte sama caabi ci biir ma ne ko fàttewul caabeem si biir am na lu muy def mu ne ma kii mënu koo jënd ma ne ko moo ngi ci biir de mu ne ma man mu ne ko moo ngi ci biir de ñu daal di dem boobu ba nëgëni si dañ ñuy woo bi mu ñëwee tamit daane ma ndax yow yaa ma convoqué ma ne ko su nekkee ne da ngay ànd ak nit te gisatuñ ko dan la koy laaj. mu ne ma lu tax ngeen ma koy laaj ma ne ko dan la koy laaj ndax yéen a àndoon ndax li nga si xam ñun xamuñu ko si ndax yaay moom guddi ak bëccëg suba ak ngoon mu ne ma keroog bu ñu xëyee surface bi sax koo yeggale ma ne ko lu tax munu koo yeggale mu ne ma dafa sawarul woon ma ne ko ah su sawarul nag mu ne ma ndax am na numéro bu ko doon woo woowee numéro boobu ko doon woo woowee nag waa section ñoom ñoo xam nu mu koy eggalee ndax ñoom seen liggéey la loolu du sama liggéey man waaye man su nekkoon sama liggéey la wala man may jàppe ñoom dañ leen di jàpp ba keroog seex di génn waaw dañ leen di jàpp ba keroog seex di génn ndax ñoom fu mu mënti ne ak fu mu mënti dem xam nañ fan la xam nañ fii la xam nañ fan la ndax ñoom magam jëmmalante ñoo ko mag fuuf ndax seex amul lu dul 49 ans dong 29 ans dong la am xale bu ndaw di ànd ak ay magam jëm ñu xam loo xamante ne ñoom xamuñu ko mu leen di yërëm lu mu am jox leen ko lu mu am jox leen ko tey jii su ma nee mënee eggale sànca bi moom mu toog yaayam nekk nii sonn sonn fu ne ñu dugg fa woote téléphone sax du ko def dem nañ fu nekk nag fu nu xam dem nañ fa nag léegi nag dañuy ñaan ngir yàlla ak yonentu bi ak jëmmi sëñ Tuubaa Mbàkke ngir jëmmi Rasuulu ngir jëmmi Rasuulu Cheikh géy mii fu mu mënti ne yal na ko yàlla yeewi ba mu ñëw ak sagoom yal na ko yàlla yeewi ba mu ñëw sagoom bu dee man ak moom ñoo bokk ndey ak baay yal na ko yàlla yeewi ba mu ñëw ak sagoom fii si biir kër gi maa ngi koy ñaan ndax doomam ji soxla na ko yaayam soxla ko jabaram ji soxla ko waaye lépp ku ci dugal loxoom rek yal na la yàlla weer comme dugub. maa ngi koy ñaan si barke alxuraan al karim billaahi wallaahi taalaahi du nekk si tele yii de waaye am naa lu ma metti nag am naa luma ma metti lii du liggéeyu nit nii waaye kon ñoom dinaa leen tëj ba keroog seex di génn jërëjëf yow comme moom bi mu fiy jógee neeñ moom Ibrahima moom la àndal moo tax yow nga jàpp ne loxo Ibrahima génnu si waxu la fan lañ tàqalikoo ñoom ñaar tali bu nee na waaw bi mu mujjee section nee na tali bu bees lan tàqali ko waaw xamul fu mu jëm ñëwul si seet bi damul dikkul suñ demee section de recherche ñoo nuy jox añ téye xale bi téye yëpp diñu wax gëy ak def yëpp ba nëgë ni si fii ñëwu fi damul dikkul waaw man ma moom Ibrahima ba keroog seex di génn fii ak ñu mu àndal duma leen si génne moom sama baat si kaw moom moo xam moom ak ñu moo indi fii seex ñoom ñaar ñoo fi ànd seex fi dem ñëwaatul ba tey ñëwaatul ba tey seex nag yorelul kenn dara teguñu ko benn pression yéreem yaa ngi nii xaalisam baa ngi baa ngi nii bagage yaa ngi nii yëpp a ngi nii nag lan la desi desi naka yàlla yeggale. soxna si ah, leen di fay. voilà ñu ngi lay laaj nan nga yëgee xew-xew bi dal seen kaw. bi dal suñu kaw de metti na torop metti ba fa metti yam noonu la def ndax sama jëkkër la moom sama jëkkër ñoo bokk ndey ak baay mu nekk xale bu baax xale bu yaru xale bu dal amul benn problème soo toogee ak moom di wax si nit sax danaan bàyyi leen deru jàmbur yi muy ku maandu tamit dem liggéey wàcc lañ xam si moom wulawul xeexut wax dëgg yàlla mu ngi jàppoon xewam ne samedi bii di ñëw bu delsee si laay xew bi mu xëyee dem liggéey boobu lañ ko gëj a gis waaw boobu lañ ko gëj a gis muy xeexoo bu metti bu tiis nag yaayam sonn na jaaxle na ay famille ñëpp sonn nañ jaaxle nañ xale bu ndaw la bi may dugg fii man si kër gi moom seex moom soxnaam bii mu jël nii man mi sax la may deuxième njëkk bi ma koy mettilu famille bi yëpp ñoo ngi koy mettilu ñi ñaan fu mu mënti nekk ak ku ko mënti gis mu dimbali ñu li laay war a suuli mu delloo si waatal ñu ko ci suñuy loxo sonn nañ jaaxle nañ yaayam lekkul naanu jabaram waxi nopp ñun ñi tamit waxi nopp wax dëgg suñ ne la ñoo ngi lekk wala noo ngi naan lekkuñu lu ñu xam naanuñu lu ñu xam dañuy demaale rek waaye metti na nag torop metti ba fu metti yem foofu la yem ñi ñaan yàlla yal na ko yàlla delloo si waat si suñu loxo ci barke Serigne Touba mi nga xamante ne nii moom la yaakaar waaw loolu lañ koy ñaanal. voilà ba tey mbokk yi ñu ngi toog ak koo xam ne frère la si moom moom mu fi jóge dañ Xaadim ñu ngi lay nuyu. ah Ndeye ñu ngi lay siyaar baax doon joxe seen wàcc waaye di ma sow ci yoon bu naqari bi lool waaw ah, ñu ngi leen siyaar baax. yow la sa rakk nan nga dundee loolu. waaw di xar wax dëgg yàlla dund mu ngi koy dundee dund dundin bu métti. waaw dinañ bi moom foog app rek weesu na ko ko franchement parce que yaakaar naa ne ku dara dalul amoo benn problème sa kër xëy xëy rek génn xamuñu si loon ne yaakaar naa loolu naqar gën koo gën koo gën koo rëy quoi mais nag dañ koy sante suñu borom te di tamit di nangu dogal ne ay ay ay jullit lañ waaw yàlla moom mooy xool jàmm bi ko neex mu teg ko ndogal waaw dañ dañ ci seetaan suñu borom daal lu baax a baax a baax waa te aussi dañ ñaan nag euh, képp koo xamante ne di aussi message bi yaa ngi koy dégg aussi yaa ngi koy gis Cheikh fu mu nekk rek bàyyi fa boppam ñun jàpp nañ ne bàyyi fa boppam parce que mag la du xale ku bàyyi soxna aussi dëgmal mbir bàyyi ko fi mu ne wan ko wan ko ginnaaw waxoo cee kenn waxtaanoo cee kenn ah yaakaar nañ ne loolu day loolu daal moom daal mënuñu see mënuñu see réagir daal lu bari daal doon doon rek dafa am ku mu waxtaanal sax bàyyi fi message nañ xam ne message bi kat ah moom am na lu du bàyyi na message mais du benn message boo xam ne aussi ñun xam nañ ko ci moom bu mu bàyyi fii loolu maa ngi wàcc sama ngénte instant lu ko waaye wax mu ne la man daal dama ngénte lu ma amul benn jafe-jafe nag franchement dëgg yàlla bu doon dafa dafa dëgg dëgg mal ngénte am ay jafe-jafe wala mu am loo xam ne dafa ko mun def ko ci ngénte aussi ngeen waaw mais yaakaar naa lépp yemboon na man maa demoon marché zeng maa xotti aussi maa def lépp tout ça ñaw yëpp ñaw mi sax moom aussi moo ngi fi ñu teg ci si si si atelier bi kon moom amul woon jafe-jafe daal lépp matoon na daal man daal jafe-jafe bi mooy dem bi mu dem te ñu ko mooñ jaaxal quoi franchement loolu mooy suñu jafe-jafe. non maa ngi moom suñu waxtaan moom daan na bëri quoi si lépp mais ci wàllu kër lay nekk waaw ma ne ko ay xale ngeen aussi xam nga xale moom boo nekkee xale da nga am kilifa boo amee kilifa rek sa yoon lu bari mën nga si bañ am faqasan dañuy waxtaan bu bés si ngénte moo si mujj sama mbaaru xale mi la may fekk bu wàccee guddi gi ma ne ko sa waay gisaguma la de ñëwul waxtaan non maa ngi ñëw ba ñu waxtaan ci lu bari si ngénte léegi lépp tout ça ñu waxtaan ci ba tëgg ay projet meeg lépp mais man diinaa moom denee rek affaire dama xaw a jaaxal waaw mais moom amul benn jafe-jafe dëgg yàlla ñun loolu ñu jaaxal amul jafe-jafe ak ni mu xëyee dem amuñ ci moom benn nouvelle fa nekk loo xamante ni dew da xaw naa xaw naa xaw naa tiis daal waaw muy génn moom xaytam ñoo ànd boobu ba léegi amaatu leen ci benn nouvelle xaytam boobu lan la wax ci dem waaw xaritam moom boobu moom man moom dama jàpp ne du xarit moom kooku moom du kooku àndandoom la woon rek koo xam ne yàlla da leen boole peut être intérêt bu ñu àndee ñoom ñaar parce que booy bi jàmbaar liggéeykat la woon te aussi liggéey bu mu munti amit bu la gisee nga nekk ci bi di semé sax booy toog fii yëpp saa bu amee sànq ku ci semé fii danaan kañ dem fii mën nga fi a dem mu jël la yóbbu la peut xëy na kooku tamit da ko woo rek amul sànq mu xëy jël ko yóbbu mën na laa jàppee ak relation ak moom mais kooku tamit aussi Ibrahima moom def na benn jëf euh, acte boo xam ne rafetul ay doomu aadama boo leen ànd ba gàllankoor am nga yaakaar naa di nga taxaw ci côté yu bari bu dee xarit ak mu doon da nga ànd ko a taxaw mais acte bi mu def nii moom wax dëgg yàlla kenn xamul ban acte la man bu affaire bi amee man woo naa ko mu ñëw si néegu néegu booy bi ma toog ak mu waxtaan ak moom ne ko Ibrahima mu ne ma man ne booy fu dem parce que yéen bu muy génn si kër gi yéen ñaare ànd mu ne ma wax dëgg yàlla te lu bees sama wàccee diinaa boobu laa gëj a xam ci moom dara ma ne ko ah bi yenn ñaar génn ànd affaire bi mu expliqué wax loon ma ne ko waa garaawul am problème ñu demaat diinaa ba ngeen di waaj ñëwaat ma woo ko na ko Ibrahima naa ma ne ko man dama laa convoqué police su Comico bëggoon nga ñëw nga leeralal parce que tamit mënoo ànd ak Cheikh dinaa mu dem tegoo fi sa tànk ñun gis ñu la waxoon ñu xel lañ yor te xel lay boobu nag lañ gëj a xam ci moom Ibrahima moom brigade recherche sax bu Colobane sax yóbbu nañu ko fa mais xam yoon moom am na loo xam ne mbir yoon la ñun duñ ci wax daal duñ ci mën a sori waaw affaire moom mu ngi ci yoon dem na ci yoon kon ñu duñ ci mën a sori daal maanaam waaw waaw si pour en ëllëg waaw pour en cas ëllëg moo tax parce que tamit aussi comme boobi dem na demin boo xam ne ñu ñaar ñoo fi àndoon génn ñun mënuñoo comprendre aussi te moom boobu ba tegu fi tànkama ah. diiran voilà ñun xamuñ xamuñ ko dara diiran lañ ngeen xam ci moom diiran bu naa ko fi mais ba ngénte bi jàll diiran boobu laa lañ ngeen xam ci moom niveau dara man day boobu ba léegi gis teg fi tànkam te jàpp naa ne man ak yow mii ba ñu doon ànd ba am jafe-jafe yaakaar naa même donte ko aw ma sax li ma ci def dinaa ànd ak yow ci jafe-jafe yi dinaa ay woote dinaa nemmeeku sama wala mooy jël sama temps sama sol sama daal ñëw ba sa kër nemmeeku la mais xam nga tamit loolu tamit aussi ni ko ne da ngay xalaat mais xalaat boobu ñuy xalaat si moom daal moo am diggante bi daal luus na si moom diggante moom moom daal am si part de responsabilité waaw man daal a loolu laa si mën a wax waaw am na si part waaw mooy képp koo xam ne gis na booy bi aussi anam boo ko mënta gisee rek ñun pare nañ pour jël si ko ci fépp waaw boo ko gisee daal ak anam bu mënta doon daal ñun pare nañ pour jël si ko parce que sonaluñu lu ñu moom jafe-jafe aussi tamit xëy na li yàlla tuddoon ci jaam dina am xëy na yàlla tuddoon li ci moom ala kulli haal mais képp koo gis tamit ak foo ko mën a gis tamit aussi numéro yi ñoo ngi fépp pour waaw foo ko wootee rek ñu nañ am nañ ko mën a jël si daal maanaam waaw nañ a jël si waaw jërëjëf nday ñoo ngi leen di siyaar tamit aussi tamit di leen masuwaat coono si si yoon bi yoon moom xaw naa naqari wax dëgg yàlla ay jàmmaan ngeen voilà mbokki téléspectateurs yi gis ngeen tey xew-xew bi ñu leen indil fii si Yeumbeul route de Bour muy xew-xew bu doy waar dégg ngeen ko ni nga xam ne moom la ko ay mbokkam waxee kooku nga xamante ne mooy Cheikh Gueye âgé de 28 ans 29 ans doon waajal xewam nag boobu ba léegi wàcc liggéey ñëw ànd ak xaritam bi mu reeree pare ñu ànd génn muy vers deux heures boobu ba léegi nag ay mbokkam gisuñu ko fu ne seet nañu ko fu nekk wër nañ ko fu mënuñu fexe ba gis ko donte nee nañu xayit bi mu àndaloon dem nee na si yoon bi lañu tàqalikoo mais daal ñoom seen xel dafa ñaaw si yëf yi mu doon loo xamante ne doy na waar yóbbu nañu nag mbir mi si yoon di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla nit kooku nga xam ne mooy Cheikh Gueye ndax soxnaa ma ngi fi ak doom ji nga xam ne moom la ñu waroon ngénte te mu demoon boobu ba léegi ñëwul mu nekk loo xamante ne lu doy waar loolool lu ci mën am yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan émission xew-xew ku leen ci mën a dimbali rek ba niital leen seen doom jooju niital papay jàmbur niital jëkkëru jàmbur jooju nga xam mooy cheikh moom moo dem ñu mën ko gisaat ci jàmm ak salaam ndax dégg ngeen sœur bi li mu wax mbir mi dafa louche te loolu dafa doon loo xam ne lu ko jaaxal lool lool lool ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di massaw yaay mi nga xamante ne maman may mun a ñaan yàlla niital leen seen doom jooju nga xamante ne nañ dem bi seen ay loxo leen jaajëfal baax a baax émission xew i gox man ngeen woote ci numéro boobu nekk ci bas écran bi équipe bi ma àndaloon bu baax a baax Cheikh Saad bu moom moo nekkoon ci caméra bi waaye Palo moom moo nekkoon ci oto bi rendez-vous incha allah maa di lay doonaat si biir 7TV télé bi ñu nuru ba nopp di ñu dajale jërë ngeen jëf